auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di sant yàlla ci teew gi ñu fi teewaat di nuyu kilifaay di nuyu kilifaay aada yi di ñaan ci programme bi yàlla ci yàlla def jàmm def ci yokkute ndax lu yokk askan wi rek la ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñu seetaan. jërëjëf Thiam ah, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ah, tey liñ fas yéene waxtaan yi ndax soo ah, boole naa topp programme bi week bu nekk dañ leen a indil topic tey nag li ma leen indil mooy ne dafa am nag bii moom ay nit ñoo may seen letters wala ñee léeg ñu ñëw fekki si ma di ma joytul li nga xam ne loolu la ñuy dundee ma gis ne kon lu ñu war a mun a indil la si programme bi waxtaanee ko yokkante xel pour ñeneen ñi mun see njëriñu ah, jàngoom mu doon lu lu am solo ndax ah, lu toll si ñett wala ñeenti nit yoo xam ne ay góor lañ ah, kenn ki daf ma kool keneen ki ñëw si office bi keneen ki bindama leta di ma wan ne moom dafa nekkoon góor goo xam ne am dafa amoon amoon na xaalis bi muy takk jabar jooju amoon na xaalis waaye jamono dafa dem ba nga xam ne fu ne nii mu ne ndoolut sax waaye li mu mënoon mënatu ko euh, ba tax nag jabar gi fu ne nii euh, ñaan na baatam mu doon lu lu lu doy waar wala sax lu mat tool euh, jàngoom. mat na tool moom. mat na tool. wallahi Haydara mot na tool li tax ma ne la mot na tool mooy. kóllëre newu fa woon bugga ak nopp dafa wuute. lan moo leen wuuteel. li wuutale bugga ak nopp loo buggee lenn ci nit. soo soo soo nobee leen ci nit bu ko ñàkkee rek nga ba ko ci taar la ci jikko la ci jëmm la ci am-am la ak ci lu mun a toll bu ñàkkee loolu rek nga ba ko te kat kuy kuy nopp mm-hmm. nopp li ñoo ooyee false la bugga moo dul màlleex ilaa yowmal xiyaam moo tax ku la bugg ku la nopp ngir sa alal ndax diggante bugga ak nopp léeg sax mu jaawaat loo ñi nga xam ne amuñ xel dinañ jël bugga di ko wecce ak nopp te déedéet bugga ak nopp ñaar la du benn booy bugga nit ki ndéem buggaa bugga dëggaa ngi ci yow da nga koo bugga illaa yowmal xiyaam bu fekkee danga ngaa nopp nit ki nag dafa am looy nimse ci moom bu dee taar ba la bu jeexee nga bakko bu dee am am ba la bu jeexee nga bakko bu dee tiitar ga la bu jeexee nga bakko te kat jamono jii ñu toll nii mitti na mitti na ci bugg nit ba muy am ba mu ñàkk nga bakko doo ca seet sax njaboot ga nga ci jur doo ca seet sax ñala ko ña toppatoo woon sëy booba doo ca ormal kenn nga xëy suba rek féttee ko rek ne buggaatuma ko la nga bëggoon ca mooma la nga noboon ca mooma jeex doomu aadama gor buy buy dugg ci dara daf koy bugga muy doom bala woo ka képp ku mu mun a nekk seetal la nga xam ne moom la bugga nga dugal ko ca loolu waaye duggal sa bopp ci béréb ngir nim see am la nga faa am loolu loola nekkaatul na mu waroon a mel dara bu ko defee nga ba ko fate dara saxu fi bëñ sax bëñ sax yàlla daf ko abale mayut ko kenn amul benn doomu aadama ku ebu ku ebu rek euh, taataan loolu xam ne ak néppanoo mun a mel ak léppaloo mun a am ci sa àddina bu ëllëg ëllëgee rek yàlla dina jël la mu la joxoon ndax mayut la ko daf la ko abaloon bu koy nangu sax doo ko yëg ndax ba mu jox yëguloo ko ah waaye nag gis nga dërëm bu wow bii yàq na addina bi gis nga tiitar gi bari na ci ñoo xam ne gii nii jikko jaam la ñu amee dañu foog ndax am am dafaa dem be faw nde bakkan mii moo dul dem be faw faw waxuma la alal kon nañu ko seetaat nañu ko seetaat yeneen du ngor du diina yeneen du ngor du diina te du jom ndax da ngay seet sax dafay dem ba nga xam ne am na koo xam ne yaa nga door moom ca ngune yaa ngeen di sëy nga xam borom bu nekk lu mu am indi la lu mu xam wax la lu mu lu mu indi jox la di la bégal bor bu nekk ndax ci kër la la jógee te nawle la la def ci biir kër gi nga xëy su benn suba nag la munoo munoon munatu ko nga jël sa bët bi sànni ko ca biti lépp lu mu la defoon defaloon fekk def nga ko ci poos bu bunna bi doo waxati ci moom lu baax ba keroog ba nga fete ko taxaw ne na tas na tas na tas doo rus doom yi nga jur te kat ku ci rusul doom ji nga jur ku ci rusul nawle yi la do ndeya bàyyi nawle yi la mayee woon ku ci rusut ku ci rusut àddina bi nga jañ le tegoon lu ne dafaa jeex ci àdduna bu jeexee nga dal di jeexal ci loolu génn ci loolu na yaa ngi dem ci leneen fa nga jëm a wóorut wallaay fa nga jëm a wóorut ku ebu rek fasaale loolu waaw ndax li ko waral mooy ah dara toogu fi lenn ci dara toogu fi su fekkee ni ki alal la tax a jóg bu alal jeexee di nga dem bu fekkee taara la tax a jóg bu taar jeexee di nga dem lenn rek moom la doomu aadama mun a jël ci nit bugga saa yoo buggee nit ki diw ki soo ko ne yaa nom nga ko rek borom xel yi ku ci mel ni ba jàngom dina ko gisee neneen dina xam ne am na loo ca bugga bu ca am na loo ca bañ bu ca loola jógee rek nag nga dal di indi tànke bukki baax na jàngo maa ngi ñëwaat ci yow anti awa mu doon lu doy waar ndax kenn ki bi ma waxtaanee ak moom dem na ba mu ne ma parce que kooku fu mu ne nii sax moom bosam jot na koo may baatam loolu bi mu amee bi léegi tollu na si juróom-ñaari at yi nga xam ne takkaatu mu ne ndax fi tama téyewul jigéen anti awa jigéen yi tamit nañ ko waxte dee rek waaye ñu ngee def lu ñaaw a ñaaw ah Binta jërëjëf indi nga topic bu am solo ndax feebar bi ci réew mi sax mooy sëy yu gaaw a tas yi waaye sëy la ko sos ñaar ña ko séq buñ ko fàttewut buñ demee ba ñàkk am duñ ko danañ mën a muñ parce que sëy ñaar rek moo ko moo koy téye mooy buggante cofeel ak yërëmante dama yaakaar nit ki su fekkee ne yow bugga nga ko ngeen di sëy ba muy am di man mu dem ba ñàkk yërmande war naa dugga nga yërëm ko suturaal ko ndax dañuy wax ne àdduna yàggut waaye ñun ñoo fi yàggut ndax fii lañ fekk àdduna te fii lañ koy ba kon dañ war a xam lan mooy sëy ñu jàpp ci gis naa suñ mbokki yeneen diine yi sax bu ñuy sëy lañuy ñuy waatee mooy bu neexee bu naqaree bu boo maneek boo manut boo ameek boo amut boo feebareek boo wéree loolu la ñuy waatee solal la jaaro bi ah, te sëy moom ñaar rek moo ko séq mooy li ma la wax rek mooy cofeel bi ak yërëmante bi kenn mënu ko génne ci sëy sëy ba neex waaye nag dañ war a seet yu bari ci biir ma eeyee ko suma càmmiñ yi eeyee ko suma doom yu góor yi gis nga li olof di wax naan xelu gaynde soo ko defee rek booy àkk àkki muus ngay àkk li ko def mooy ñu bari ca ngoro ga buñ manee ta am duñ denc dara duñ desal dara yenn yi dañuy fàtte sax seen aaw ba ca kër ga xalaat ne ku ko xaj na eh, may gu njëkk gañ ko mayoon sax àggut five hundred dalasi jëndal ko benn machine ak benn montar mm-hmm. ñu may ko jabar ja mu nekk fa di muñ di muñ di muñ ba lépp a ñëw mm-hmm. nga dem ut keneen nag ne ko foo joxoñ ma dagg mm-hmm. wan ko sa lépp jox ko sa lépp soo demee ba amatuloo ko mënatuloo ko rek te alal la toppee woon daf lay ba waaye su fekkee ne da nga bëgga parce que dama déggoon ci suma benn ah, dina ko tudda sax te ñaanal ko yàlla muy paado ko sax mhm. dafa wax ne mbugeel mhm. su fekkee ne nen la mhm. nga di ko def ci basket bi bul ca def yëpp ndax boo fukkataloo boo daanu yëpp toj moo tax boo buggee fukka risaafal juróom ya nga denc juróom ya loolu nanga koy risaafee mooy ne yow soo mënee fukk defal ñaar loo man rek am na ku la ko gën a man te nit ki boo àndee ak moom nga di ko defal loo xam ne lii eh, loo loo man ak loo manu yaa ngi ko ko defal naan ko foo joxoñ ma dog loo def ma loo loo ma laaj ma jox la jaral nga ma lu ne ah mën naa am moom lam la la nga ko jaral mooy li nga am bu jeexee mu bala te loolu nag jigéen ñi dañ ci war a bàyyi loolu sëy orma la ak kóllëre dañuy jaawale ñaari yëf dañuy jaawale barke ak wërsëg loolu toujours nit ñi dañ koy jaawale surtout jigéen ñi waaw mën nga am wërsëg am jigéen góor goo xam ne gii mu di la tuur alal di la defal lu ne nga dem ba te barke nekku ca su ëllëgee nii rek lay mujjee waaye soo àndeek nit ki ngir yàlla ak yonent bi barke wàcc ca yaakaar naa ne ca feeba rek dafay daal di ñëw barke boobu dafay daal di ñëw law ci doom yi loo nimse woon ci sa jëkkër amoo ko yàlla dina ko def ci sa njaboot gi nga am ko parce que nit sa góor jëkkëram góorgóorlu na fi ba sonn na te mënul koo yóbbu màkka mënul koo defal néegi tabax mënul koo defal taayils mënul ko defal dara waaye barke ba ca jëkkër ja nag mhm. mooy wàcc ci doom yi doom yi defal ko ko muy teraanga mu di ca dund kon dañu war a bàyyi suñ xel ki yi jaawalee wërsëg ak barke ndax boo jaawalee wërsëg ak barke rek góor goo jekku rek danga roñ lam am ba mu jeex tàkk te barke wàccu ca boo demee nag ba war a am barke nga téye sa et bi di yalwaani jigéen ñu bari ñu ngi fiy taxawaalu ci mbedd yi di def di di mag te amuñ ku leen dimbale wala seen doom yi cër bañ leen war a jox duñ leen ko jox ñàkk barke moo wàccoon ci lañ doon def ak baaxut